feebar bi ma ci wax mooy kenn ku nekk na ko respecté ndax feebar bi du caaxaan de feebar bi xale ak mag ak ndaw ñëpp ñoo war a takk mas lu ci ndax ñun ñoo moom suñu dëkk ñoo war a respecté suñu bopp dégg nga xale yi tamit ñuy dégg xale yi koo ci wax du dégg du ñu takk mas ñun ñun wax nañu buy bëgg a dee te lii du lii lii du caaxaan de lii du caaxaan ñu yi ëpp na suñu loxo yàllaa ko fi indi yàlla ko yàlla teggi waaye nag nag nañu ci góorgóorlu feebar bi ci xale yi ci mag ñi la gën a metti xale yi duñu dégg te xale yi ñoo war di dégg ndax xale yi di ëllëg ñoo fi nekk ëllëg nit ñi tamit dañ leen di jàppale rek waaye dañ cee war a góorgóorlu te bàyyi caaxaan caaxaan baaxul te lii feebar bi du caaxaan de ñu naan ay politique bu benn politique ñiy de politique reyu leen feebar bi moo leen rey te feebar bi dafa danser baaxul nañ ci góorgóorlu bàyyi bàyyi caaxaan caaxaan amul njariñ te réew mi ñoo ko moom ab Ablaye Wade moom ko euh, Abdou Diouf moom ko euh, Macky Sall moomu ko yàlla yàlla moo ko indi nag yàlla ko fi yàlla teggi waaye xale yi tamit góor góorgóorlu wuñu ci de mag ñi góor góorgóorlu waaye xale yi góorgóorlu ñu benn yoon xale yi bu ñu ñëwee ñun dañu leen di daw demal raxasu ji fii mu ne dañ may reetaan sax dama raxasu ji dama takk sa mask dama raxasu ji dama takk sa masque lañu dëkk ak ñoom xale yëpp nag xale yu góor yi ak yu ndaw yi ndawaan yi ak suñu sët yi ñëpp demal takk masque demal demal raxasu rek la ñu dëkk ak ñoom waaw nañ ñu dimbali ngir yàlla ndax toujours man damay damay seetaan journal sept bu ne damay toog seetaan journal su ma seetaanee dañ naan xale yi déglu leen li ñuy wax xale yi déglu leen li ñuy wax dañ may reetaan sax kër gi dañ may reetaan ñoom ñëpp dañ may reetaan ndax li may wax bés bu ne damay seetaan journal journal yi du ma manqué benn te kaa yi rek kaayi yi rek la ñuy wax ba ñu jullee ba léegi nag kaayi yi dafa gën a yokk damaa bëgg xale yi góor yi ak xale yu ndaw yi ñu dimbali ñu ndax ñun dañoo bëgg a bu am cent ndax ñun ñoo leen yor kon nag nañ ñu jàppale ngir yàlla yonente ba dañoo bëgg a dund bu am cent ans gisatuñu kenn sax am eh, eh, juróom-ñetti fukki at ñëpp a ngi dee ñëpp a ngi dee nañ ñu dimbali ngir yàlla laaw rasool yi ay xale yi dimbali leen ñu dimbali leen ñu ngir yàlla dimbali leen seen maam yi dañoo bëgg a dund ba am cent ans ñi des